Bassirou fan lañ fenn fe euh, xam nga fan lañ njëkk tàmbalee. Mm-hmm. Euh, fiñ njëkk a tàmbalee. ba muy njëkk a def son. ba muy def son. ñu son bi dafa njëkk a yàqu. pour que rek lu war a lu war a neex ah day njëkkee naxari ñu war a gé mu war a génnee son bi dimanche baa Baba Amdi euh, kii ko waroon defal son bi. tardeel tardeel ko tardeel ko moom son bi foofu quoi léegi euh, si la ñëw ñu dajee euh, fële si Papis Ndiaye si kii euh, si Baba Amdi moom Cheikh Anta mooy nuyu Cheikh Anta de passage si son boobu moom tamit mu sonn si muy jooy ndax son bi lu mu waroon génne te génnul fekk bas annoncé woon son bi après si lañ njëkk di xewal xam nga loo xam ne sax wóor na see am am na garaawul xam nga du oh, du lu ñuy waaw waaw mais du du lu ñu du loo xam ne sax dafa dafa nekk parce que nit moom tey booy boo defee lu baax rek def nga ko jeex na jeex na xam après si lañ demee studio Papis Ndiaye ñoom moom Papa Mbaye ak ak Cheikh ñu dem def son bi ba son bi génn ba son bi pare si fajar maa ngi tëdd ak sama soxna ay 6 heures matin mu envoyé ma mu envoyé ma bi bas bu dema bàyyi son baa ngi déglul ma déglu temps booy bi déglu déglu dégluwaat dégluwaat ma ko ma ne ko booy juum nga de mu ne ma ah si lan ma ne ko mais gaan yaa ngi lim kii way nga booy yëpp mais boole woo si ñoom zap mu ne ma dégluwaatal way naa leen kay ma dégluwaat mu way ñoom zap baat ma ne ko waaw ba def nga affaire bu nice ma ne ko lii moom nice la toro mu ne moom foo nekk mu ne ma sëñ foo nga ñëw gaale petit mooy petit gàttaan foofu foofu la la nekkoon ma ñëw ay 7 heures du matin ma ñëw toog foofu mu ne ma sëñ léegi nan la ñuy def léegi man yow laa xaal yow loo joxe loo doxe accord rek ñu ñu ñu gérer yaa ngi déglu fekk man avant boobu man prévoir na ma ne ko ma ne ko booy mu ne ma léegi nañ nañ ko tas man ne ko non soo kenn du ko tasee nii ma génn xewal jox ko ne ko dama jënd ndox jëndal sondeel defal lii ñu saraxee avant tout ñu def loolu bañ defee ba mu defee loolu mu ne ma léegi nañ ko tas ma ne ko doon kenn du tasee nii son parce que son boo bëggee mu nekk euh, mondial ñëpp di ko déglu du fii du nii nga xay tasee parce que tey boo ko jëlee yónnee ko nit si téléphone bu ko dégloo benn yoon fa lay yem ma ne ko son bi ma ne ko créé woon naa benn page YouTube ma ne ko dañ koy dugal foofu buñ ko dugalee ma génne lien bi kuñ koy yónnee ñu def envoyé et partagé ku xool ku fàttaliku ko ay jamono la ñuy jox yàgg yoo samay samay samay samay di nga gis sax loolu ma ne ko noonu lañ koy yónnee nga xam nit ñi dañ koy yónnee muy tas di tas di tas di tas xam ñu def noonu tey euh, Abba njëkk ñu invité émission ñu dem def foofu émission genre son bi mu ngi mi ngi mi ngi mu ngi jàllone quoi ni ñaay déglu ñi ñaay woote nii mi ngi kii mais li njëkk li gën a taal son bi tey dama toog euh, biram manager El Euh, mu ne ma sëñ esa kii dañ fa war a play ba El Hadj dafa war a play back quoi xam nga te yéen euh, comme te seen son baa ngi soog a génne puisque doon na fa dem play ba même bu dul xaalis sax teraawul xam ma toog ma ne ko tu as parfaitement raison xam ma ne ko wax nga dëgg te stade day am visibilité te am combat Ama Baldé la woon Ama Baldé ak Papa saw xaw waaw Ama balde Papa Sow ñoo doon bëree période boobu noonu ma ne ko ma ne ko wax nga dëgg ma woo si laa wooyee faamara Famara bu Prince Art ma ne ko Famara euh, naka mu mun a mën a ma ne ko doomu dimbali nga fexe nga dugal ñu si si si programme bi mu ne ma boy loolu moom yéeme def ma ne ko non mu ne ma kan la ma ne ko bas mu ne ma boy kan mooy bas ma ne ko ah mais bas suñ temps yi son buy def buzz bi temps booy bi temps bi mi ngi def buzz gars yi bëgg nañ ko jàppale ñu ñëw jéego Famara na ma léegi amul problème ñëw leen instant. ñu ñëw estar xool li yàlla di def te son bi billaahi wallaahi taala son bi foofu la taaxe son bi loolu noonu combat boobu noonu fa la bi den doonee fa la son bi doonee fa la ñëpp commencé xam ñu dem ñëw bu bunt estar ñuy coow si bunt bi barke yàlla ñun ñun ñu ne dañuy dellu bas bas bas am ku mu doon coowal fekk ñu doon dugg si am ku ñu doon humilier yooyu ñu ñu gis suñu boobu ñu ne dañ waaw ñu après ñu ne ñu ne dañuy dellu ñu dellu ba si yàgg biram de biram ñëw na ma sëñ non doo leen dellu bàyyi leen ngeen def biram manager la ma ma man tamit xam rek manager tamit da ngay mat du nit day siisu rek yow tamit nga siisu mer na foo ko fa so loolu lañ la fay tegee pour ngay tàggat booy yi ndax xale matul ma ñëw na bu wow ma ne ko bas ñëwal ñu dem musée parce que tey lii suñu visibilité bi daf fi nekk yi jaru ko yii nii ba soloo du lu nekk di nga ko gis dina dem ba benn moment lii yëpp dootul amati nañ dem rek ñu jaay suñu bopp si lañ duggee. ñu yegg si tribune bi ma wàcc yóbbaale kereeg lépp lijjanti tey ba ñu kale do fexe fexe fexe ba ñu mujjee ba ñu mujjee playback ma ne Famara jàppale ju ne nga def ñu ñu mujjee playback stade bi tey dinañ ko toj ma créé tey ba ñu mujjee playback Famara na ma amul problème ñu dem ñu teg playback bi dugal taabooy bi boo xoolee boo seetaanee combat bi rek stade bi di riir nooy mooy too soo noonu stade bi yëpp di kii loolu doon mondial fekk combat boobu nañ ko doon seetaan ñu jóge si loolu nag fu nekk appel yi di dal ñu nekk ñuy woowee fii bas sa bi lii émission yi commencé tey ba nii sa tey boo ko amee da ngay ñaan yàlla yàlla boole laa koo xam ne da ko ruus ñuy wax dëgg rek ku lu xàq wala kaanu mu doon damay koy waxal dëgg. kerte boobu xaw ma xaw ma nag luy xew sama ginnaaw wala leen mais bas man su may wax sax du wax jox na ma cër boobu moom yaa ngi dégg. cër boobu moom jox na ma ko mais kañ laa sentir ba ay yenn détails am dañu amoon benn publicité Sokola maa ko maa ko maa ko lijjanti si Armand DG sopp na bi foofu la foofu la commencé na réeroo commencé am benn publicité maa ngi ko signé woon xam ay 2 millions 500 man maa ko lijjanti loolu ci la ay lëj-lëj jékki-jékki ma xëy. xëy naa woo ko parce que bii dañuy def studio noo dew ma di ay détails après par contre no fekk commencé nañu publicité bi quoi xam ah, man dama ga man benn wax nga may wax ma pare si ma pare parce que man du ma nekk xam ne tey damay topp nit man loolu ñëpp xam nañ ko si man du dara man benn wax nga may wax ma ko ma ko parce que tey loo xam ne tey nanga nga koy def te yàlla tax mhm. na nga doon jàppale ni te yàlla tax am na yoo xam ne boo ko si gisee rek da ngay da ngay da ngay da ngay arrêté waaw mu ne ma dew ma mhm. affaire yooyu ma ne ah ma coupé sama téléphone supprimer ko bloqué numéro am fépp looloo jëkk indi suñu réeroo ba bàyyi ko ñoom ñu continuer seen publicité récupérer seen xaalis récupérer lépp. tey nit booy ànd ak moom booy ànd ak moom dañuy waxtaan ci lépp quoi nit booy ànd ak moom tey euh, nga dem nga am am lu xew. après par contre laa toog di déglu ay affaire yu ñaax fayda ah yu ñaax fayda lañu mer affaire yoo xam ne doo sax comprendre ay diw moo ñëw ne xaw ma kii lii affaire yu jigéen affaire yoo xam ne doo sa comprendre quoi affaire yu xale. détail yu xale ma ne non ñii après mag comprendre quoi ma ne ñii ay xale la lañu quoi xaaram am na yoo xam ne jarul di topp. xam nga ma ne am na yoo xam ne tey jarul topp quoi dama mag laa dama tëj sa magasin dama tëjoon sa magasin sa magasin tey su ma bi nekk fii nii Medina bi ma doon def scooter yi bu demee ba tëj. du ma nëbbu ginnaaw yàlla ñoom la de parce que ñoom laa dem topp di leen jàppale tey ba sa magasin boobu tëj dañuy sant suñu borom loolu yëpp c'est la passé xam nga tey nit fan lay neexee nga topp si benn affaire ndax dara ndax alal wala dara mais tey bañ koy def defuñu ko ndax alal dañ ko doon def rek te yàlla tax ak dénkaane ak ak ak ak ak ak suñu kàddu bañ joxe tey mat matal pour matale ko papa matale ko yaay tey si loolu lañ nekkoon moo tax tey ñu matale ko côté boobu xam nga adduna du neex ba mu duggati si ay ménagement du ma ko def du ma ko def taluma ko li ñuy def mën ko lan la ménage management pour lan ñoom dañuy wut xaalis man damay wut xaalis ma ménager ma nekk sama ménageur bopp di lijjanti sama bopp xaalis mais léegi comme nekk fii di lijjanti nit pour muy tekki buñ tekk ku si tekki yow lay njëkk def noonu de billaahi wallaahi taalaahi ku si njëkk a tekki moom yow lay njëkk def noonu day mel ni na nga ko doon rayal say say doom billaahi wallaahi taalaahi non yow affaire yii nii. affaire da war ak affaire da kii Jeune Talent yi da nga ko gis te Jeune Talent bu ko si bàyyiwul doo dem fenn man maa ko wax barki Serigne Bamba ku si wul ay war ay affaire def sa di merloo say koo xam ne dafa sonn si yow ak day fayu de. Mhm. barki Cheikh Ahmadou Bamba ku si yaakaar ni que nag benn un an deux ans trois ans tey yaa ngi kii nii fii lépp lu dul jeex amul nguur yàlla rek dul jeex.